euh, son code vidéo. Les gens qui sont emprisonnés, libérez-les tous, sans exception. Donc maintenant, on plus au Madame, c'est ma position. Je suis déjà à terme. de cela deux mois. On a discuté, il y a envoyé une sorte de plateforme. Mais de mon regret qu'on se mette au d'une Parce que, dans ce ah, avec

il nous faut un projet comme ni pour transformer le Sénégal. Mhm. parce que le peuple ne va plus l'accepter. na Diouf dem dégage mu dem ñu ni Abdoulaye Wade mu def pire que Abdou Diouf dégage mu dégage ni indi Macky Sall léegi suñu taxawee ñu dégage le peuple va me demander le bilan des alternances françaises.

mais mën na leen ko paase. nee nga paase le discours. wala da nga ko jël. wolof rek wolof. fi nga toog baax na baax na baax na l'essentiel waaw. Kita mesti Ok. jox la bii nga géré quoi. direct bi nga géré quoi. waaw. waaw grave kii boobu. géré géré boobu. doxu nemmeeku yi ak doxu euh, yi ñuy dox ñëwoon tey seet si suñu xarit suñu collectivité suñu papa sëñ Mansour Sy Djamil honorable député à l'Assemblée nationale euh, xam ne Sénégal yëpp gis nañ taxawaayam ci mbir mi ñu taxawaay boo xam ne bettul kenn ndax bu ñu ko waxee léegi ci kàddu yi rek di bële naa li ñu saam yëpp ci dossier yoo xam ne mën nañ ko méngaleeg injustice bu ñuy teg acteur politique naa taxawaay bu bu mel ni bii kon euh, teg na tànkam fu mu ko teg moo taxoon ñu ñëw nag ne dinañ ko ziar si moom ak partem bés lu ñàkk और जायज फल को और गर्म को प्रसाद को